Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télé Futur Média. Bienvenue à ce bulletin d'information de 7 heures dans votre émission Yeewu Leen que nous démarrons avec la célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé. Le thème de cette année porte sur le diabète, une maladie qui fait des ravages ici au Sénégal. Le Sénégal, justement, premier pays au monde où se déroule un programme M-Diabète. qui est lancé depuis 2014 à Fatick. C'est un programme qui consiste à faire des tests initiés par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union nationale des télécommunications et des postes. C'est pour sensibiliser les personnes à travers les téléphones portables. Nous écoutons les explications du professeur Saïd Nourou Diop. C'est le directeur du centre Marc Sankalé au micro de Mambiram Diouf. on avait constaté que 80 à 84% de la population avait un téléphone mobile et qu'à partir de là, donc, on devrait pouvoir les joindre par des petits messages simples, journaliers, qui leur permettent de savoir d'abord qu'est-ce que le pour le diabétique de savoir comment est-ce qu'il pour celui qui, qui n'est pas diabétique, savoir comment faire pour prévenir cette maladie. Et troisième composante, ce sont les professionnels la santé qui ont déjà une formation de base lors de leur formation euh, dans, les, dans, les, dans, dans, les, dans, les, dans les universités ou dans les écoles de santé, eh bien, il faut renforcer leur formation. Et il y a ce qu'on appelle le programme information qui s'adresse à ces professionnels, qui leur rappelle ce qu'est le diabète, qui leur rappelle les signes de la maladie, qui leur rappelle les méfaits de la maladie et surtout leur rappeler, leur apprendre s'il le faut, les moyens de le prendre en charge au mieux au bénéfice du patient. Notre objectif dans le cadre de la journée mondiale du diabète, avec le ministère de la Santé, c'est de lancer une large campagne pour que d'ici le prochain ramadan, au moins 50 000 personnes soient inscrites dans ce programme. Restons toujours euh, dans le domaine de la santé pour signaler que le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres deux importants projets de décret. Il s'agit du décret portant statut du personnel des établissements de santé publique qui est une vieille revendication des syndicats. L'autre mesure, c'est l'adoption du projet de décret portant application de la loi relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Parlons de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Les conséquences directes commencent à se faire sentir sur l'économie d'une vingtaine de villages frontaliers situés dans le, la commune de Kataba 1, c'est dans la région de Ziguinchor. C'est la raison pour laquelle le maire de la commune, Abdoulaye Badji, a lancé un cri d'alerte à l'endroit des autorités. Nous l'écoutons Au micro de Boubacar Diassi, c'était en marge d'une cérémonie réunissant les populations de ce village. La commune de Kataba 1 est composée de 35 villages, dont à peu près 20 villages sont le long de la frontière. Cette frontière est justement fermée aujourd'hui. Imaginez un peu des populations qui des activités voisines avec les frères sœurs gambiens. Aujourd'hui, se trouvent être très bloqués par rapport à cette a il n'y a pas de voiture qui entre. Et aujourd'hui, la population est prise et désemparée. Euh, en plus de ça, les dégâts économiques sont très importants. Et ça, c'est pour nous, tribut, que nous sommes obligés de payer, euh, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire cette transaction entre la frontière et qui, et euh, au niveau de la frontière là, ils sont en train de payer sur nous tribut. Amnesty International félicite le gouvernement du Sénégal suite au transfert de deux ex-détenus de la prison de Guantanamo, mais, la, mais ils invitent les populations à être vigilantes, aussi les médias, à savoir raison garder sur le traitement de cette information. Nous écoutons Samira Daoud, elle est la directrice régionale de Amnesty International au micro de Aminata Mbaye Sow. Donc aujourd'hui, nous constatons que ces deux personnes qui ont été détenues à Guantanamo pendant 14 ans euh, n'ont jamais été euh, jugées et surtout aucune charge ne pèse sur ces personnes-là. Donc ce sont des personnes qui sont libres. Donc pour nous, évidemment, c'est un motif de satisfaction de nous dire qu'une personne contre laquelle aucune charge ne pèse et qui n'a pas été jugée soit finalement libérée, euh, c'est une bonne nouvelle. La responsabilité, c'est aux autorités d'expliquer Euh, qui sont ces personnes-là et, et, non pas euh, à la classe politique d'alimenter euh, la crainte et, et, la, et la terreur pour quelque chose qui, qui, qui n'a pas lieu d'être. C'est la responsabilité aussi des médias de présenter ces personnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes libres. Ce ne sont ni des terroristes au sens où des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des personnes qui sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale pour des actes de terrorisme, ce n'est pas le cas. Donc ce sont des personnes qui ont purgé ans euh, de prison sans jugement, sans de ce nom et qui aujourd'hui ont heureusement été libérées. Le Sénégal les accueille, c'est tout à son honneur. Éducation à Saint-Louis au moment où l'école traverse une crise sans précédent, les enseignants de la commune de Bokhol ont choisi de cultiver l'excellence à travers euh, une euh, cérémonie qui consiste à sensibiliser les personnes sur les conséquences de la déperdition scolaire. Ils ont également invité les autorités à construire un nouveau lycée

au moment où l'école sénégalaise est en crise, des enseignants de Bokhol, euh, comme d'habitude, ont montré que nous avons besoin d'eux. d'enseignants performants. La cérémonie a servi de cadre aux acteurs pour passer en revue les nombreux mots du système éducatif. Le président de l'amicale liste les problèmes rencontrés dans la commune de Bokhol. Euh, au niveau de Bokhol, il y a une forte déperdition scolaire qui est constatée de plus en plus. Nos enfants nous quittent avec vraiment parfois de bonnes dispositions, mais parfois pour des raisons euh, de pour des raisons d'hébergement, ils sont appelés à aller fréquenter d'autres localités et souvent ça pose des problèmes. Sauver l'école sénégalaise, le juriste Malingbok invite les fils du terroir à s'investir activement. Tout le monde sait que euh, à la base c'est l'éducation. Donc primer a pas ça. L'amicale des enseignants de Bokol se fixe comme objectif de promouvoir l'amitié et la solidarité entre les membres. Il veut aussi le maintien des élèves dans les écoles pour participer au développement du village en général et à la promotion d'une école de qualité en particulier. Avant de se quitter, rappelez cette pose de la première pierre de l'arène nationale. Ce sera ce par le président Macky Sall, l'arène nationale qui se trouve à Pékin, à côté du Technopole. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. defal comme ni nga mel bul changé du lépp la waa wala lu ñu la misaal nga daal di koy gëm lu weesu dee s'occupe tellement de moi ici. Elle la maquilleuse? <laughs> Tellement on s'occupe bien de moi. Merci mon ami Am. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On vous souhaite une très bonne journée. Nous remercions toute la rédaction. double la ñu am ñaari way yoo xamante ne bu ci nekk euh, actuellement euh, dafay féexal suñu xol Kumba Gawlo d'abord qui nous a proposé Cool. Ensuite euh, ñu jox leen Youssou Ndour ak Leïcha Exidex qui demandait Youssou Ndour fan la tase ak xale boobu ba way on lui a dit que au au cirque d'hiver. c'était au cirque d'hiver euh, n'est-ce pas Zeyna c'était au cirque d'hiver la c'est <laughs> au cirque d'hiver bon après ma expliqué la fan la mu ngi ko woy en 1900 waaw euh, doo ma bàyyi boobu euh, euh, bi mu woyal nii États-Unis américaine là en fait <laughs> la jógee on vous souhaite une bonne journée tout de suite on retrouve d'abord la rédaction centrale du quotidien l'Observateur pour la présentation du menu du quotidien l'Observateur de ce 7 avril une présentation assurée tout de suite par Abdoulaye Seydou. Bonjour Abdoulaye. Cher Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen. Comme d'habitude, c'est tout heureux que je vous retrouve ce jeudi matin pour la présentation du menu de l'Observateur du jour qui barre à sa une principale 20 ans de gestion du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng Conte et mécompte d'un intendant. Le secrétaire général euh, du Parti socialiste reste solide en dépit de ses échecs et d'une forte contestation interne. Ousmane Tanordien a encore une emprise sur le parti qu'il dirige sans partage mais avec diplomatie. Pape Cheikh également en bonne place à la une de l'Observateur du jour, ce double meurtre aux États-Unis d'Amérique. Euh, et la Diop accusé d'avoir tué sa femme et sa fille. Et autant dire que le nombre de Sénégalais tués à l'étranger ne cesse d'augmenter. Le pays de l'oncle Sam paye encore un lourd tribut dans ce registre. Cette fois-ci, il s'agit d'un drame sénégalo-sénégalais. Devant protéger sa famille, la Diop a fait plus que faillir à cette mission. Il a tout simplement capitulé. Établi à Raleigh, en Caroline du Nord, et la Diop est accusée d'avoir froidement mis fin à la vie de son épouse Aminata Dramé et de sa fille Fatim Diop. Un crime crapuleux dont le mobile reste inconnu. Disparition de quatre offres d'un marché. Le ministère des Finances et celui de l'Énergie sont à la recherche de dossiers égarés relatifs à un marché 190 milliards de francs CFA portant sur des offres relatives au programme national d'électrification rurale. Et enfin, pour terminer, Pape Cheikh, annonce politicienne, série de promesses contradictoires, refus de riverains, nous parlons évidemment de l'arène nationale et retour sur les péripéties d'un projet compliqué éléphant blanc, puis serpent de mer. Après des années de report, moult promesses et débats, l'arrêt national va enfin entrer dans sa phase d'exécution avec la pose de la première pierre prévue aujourd'hui par le président de la République Macky Sall. L'observateur revient sur les péripéties qui ont jalonné le parcours de cet édifice. Voilà, Papier, c'était tout pour la présentation du menu de l'Observateur du jour. À toute l'équipe de Yeoulen, merci. Merci également à vous et Ben, merci au présentateur du jour, Abdoulaye Diédhiou. C'était la présentation du menu euh, du quotidien L'Observateur de ce jeudi matin. Merci à tous. Euh, merci à cette grande rédaction que l'on retrouve certainement demain, toujours euh, pour L'Observateur. Dans quelques minutes, on vous propose revue des titres yi dañ ci ak Chérif Dia mi nga xam ne ni moo ñu présenté journal bu njëkk bi ci français sànq la jeex bi ci toftalu dañ ci àndaat ak moom ca kanam bu 8 heures jotee. Zeyna, bonjour. ñu ngi ciy jéggalu bu baax Bamar Diagne ndimbalam xam naa fi lekk euh, lundi euh, bu ñu négocier. Euh, dinañu ko waat mais bëgg nañu quand même fu ngeen xëyee ngeen tàggoo kumpa ci jaww ji ak li mu ñu naral daañu ànd ak yow itam léegi nii pour horoscope bi en attendant on va permetre à Chérif Dia de nous rejoindre encore sur le plateau xam nga ndékkikat la nag. waaw dafa mën a ndékki. <laughs> ndékkikat la boo xam ne day kenn mësul gis loolu man xaw ma li muy ndékki ndékki lan la ki koy simmi laa xamul ñi sant Dia ñan ñu leen di simmi. Ah, wala xamu leen. xaw ma ñu koy ñu leen di. si yow war ngaa xam loolu. waaw war nga koo xam. <laughs> yow normalement war nga koo xam de. ñi ñuy simbi war mën a xam moom. Ah, li ngay cax ak li topp téléspectateur di leen mbii fa foore indil leen ay wax. Ah, ça c'est grave ay cax ay. Ah. dévider ay lu ne ci lu ne lay. comment naka nga mën a fanaan ak ñoom yeew ak yeewandoo ak ñoom. lii tey loolu nag moo tax yow ba ma xëy yow c'est vrai que des fois nga yeewu comme je disais souvent euh, rey ñaar ba ñett waaye euh, ñi ñun ñi ñu gën a rey mooy suñu ay patron yenn saa yi nga rey sa directeur ñaari yoon. <laughs> voilà puisqu'on n'a pas encore vu euh, Chérif euh, euh Dia euh, je pense qu'on peut euh, enchaîner euh, ak horoscope bi juste après on vous propose une journée yi yéenekaay yi ak seen i xët ngeen mën a xam lan ngeen di lire laataa ngeen di génn seen kër ñu jàll ci horoscope allez euh, dañuy commencer ak euh, ak bélier yi. bélier yi Pape Cheikh tey di jeudi 7 avril 2016 euh, bélier yi nee nañ leen nañu profiter de cette journée pour ñu jël ay initiative nañu fësal seen bopp mettre seen bopp en valeur waaye nañu jéem itam bañ cee def ba mu ëpp ndaxtekat kat buñ ko defee dinañ déranger ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen wër taureau ñoom journée bi dafa mettre l'accent ci seen vie intérieure wala ci seeni ay besoins personnels euh, nañu reste zen nag jamono yi mel na ne euh, euh, nekkuñu ci jàmm mais fileeki fan dinañ mën a sentir beaucoup mieux. gémeaux yi ñoom tey jii dinañ am occasion wu mettre en place ay projet commun ak seen partenaire wala ak seeni ay collaborateurs résultat yi nga xamante ne nag dinañ ko ci jëlee dina leen satisfaire waaye du doon léegi xam nañ ne euh, fileeki fan lay résultat yooyu di ñëw conseillers yi ñoom itam dinañ am euh, occasion wu arriver à des euh, sommets ci euh, seen biir liggéey ñoom itam ñu ngi leen di wax rek nañu fësal li ñu mën bu ñu hésiter surtout étaler seen savoir-faire ndax la modestie kat c'est pour les faibles lion yi ñoom euh, tey jii suñu moytuwul dinañ participer à un voyage wala un long week-end en famille wala ak seeni ay xarit su fekkee ne nag loolu am na nañ ci profité bu baax ndax jour yi du ñëw du doon ay jour yoo xamante ne yu yomb la dinañ ci daj tool coono yu bari ci seen liggéey. Vierge yi ñoom euh, soit c'est la crise wala c'est le au niveau sexuel. waaye dans tous les cas ñoom itam bu ñu ko euh, jëlee problème su fekkee ne crise la ndaxte kat elle sera que passagère balance yi ñoom tey dinañ mën a euh, semer des graines d'amour ci seen biir xol wala ci seen biir xolu euh, partenaire tey jii kat l'amour mi ngi leen di réussir bu baax a baax te ensemble ñoom ak seen partenaire dinañ mën a euh, parvenir à concrétiser ay mbir yoo xamante ne depuis boobu ñu ngi koy waxtaanee. scorpion yi ñoom liggéey moom mooy seen souci majeur euh, depuis quelque temps nag ñu ngi gis ne ñu ngi sonn bu baax a baax ci seen liggéey et du coup seen santé mu ngi koy ressentir bu baax a baax li ñu leen digal rek mooy ñu jël quelque jour de repos sagittaire yi ñoom ñu ngi croquer l'amour à pleines dents dinañ am complicité bu bu neex complicité bu rafet ak seen partenaire waaye su fekkee ne nag dañu am ay doom bu ñu rester euh, ci seen bulle ñoom ak seen partenaire nañu boole seeni ay doom euh, ci euh, bonheur boobu nga xamante ne ñu ngi koy partager. Capricorne yi ñoom foyer ak rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, la ñu am ak les membres de leur famille ñoom itam euh, ñoom la moom la ñu privilégié tey ci journée bi ba tax na ambiance bu neex ambiance bu boo xamante ne daal dina dalal seen xel moom mooy am en famille tey jii. verseau yi nag ñoom fan yi yëpp ñu ngi leen di koy wax ñu ngi am un sens aigu de la communication te tey jii dinañ am une énergie boo xamante ne énergie euh, bu bu peu commune la euh, loolu nag dina leen pousser à ce que ñu déplacé wu woote jéem a contacter seeni ay nit euh, tey jii kat su fekkee ne tàmbali nañ ay projet résultat yi nga xamante ne dinañ ko ci jëlee fileek environ un mois dina nekk résultat yu leen neex pare ak poisson yi poisson yi ñoom jamono jii ñu xalaat lu bare xaalis nan la ñuy def ba gën cee bërele wala naka la ñuy def ba fructifier li nga xamante ne euh, moom la ñu jot a yor nañu jéem a nag évaluer les risques sans pour autant que ñuy illusionné wu trop wala ñuy ragal nañu def rek la part des choses xool nan si lan la ñuy investir ak si lan la ñuy dugg Pape cher li la ñu si horoscope tey yem ak jeudi 7 avril 2016. merci tey Seynabou xale bu yaru bi nga xam ni du ma euh, xale bu xale bu baax lool xale bu baax lool xale boo xam ne du tontu mag du indil mm. mag ñi ay problème loolu horoscope bi la woon ñu ngi leen ci gërëm bu baax ca kanam euh, di nga euh, yendu ak internet yi balaa nga ñuy wax sa hashtagu bis bi puisque mm. tous les matins yaay joxe couleur waxtaan yi ci réseaux sociaux yi ak grand place yi mm-hmm. on va retrouver Chérif Dia très rapidement pour yéenekaay yi ak seeni xët Chérif ñu gërëmati la ginnaaw ña journal bu njëkk bu 7 heures bi avant bu 8 bi ci wolof euh, yéenekaay yi da nga ñu ci euh, gindi ñu mën a xam lan la ñuy liir euh, balaa ñuy génn suñu kër après l'observateur bi ñu leen présenté sànq ak Abdoulaye Diédhiou dañuy jàll ci xëtu yéenekaay bi di le quotidien tey ji xëy na ak coowal Panama Papers ak yenn ci ay kilifa yoo xam ne ni tudd nañ leen ci alors finance offshore loolu bokk na ci lu ñu gën a gis ci cow loolu le duyo du paradis Karim ak Mamadou Pouye waaw Karim ak Pape Mamadou yi moom la yéen kaay bi daal di jagleel xëtam mu njëkk jagleel ko rek la xew ca Panama ak scandale bi fi ay journaliste daal di génn moom nag mu def daal di de moo jàpp ni paradis fiscal boobu daal njort na ni ñaari doomu aadama yooyu dañ fa jël ay koppar denc lu ko fa ba tax rek moom yéen kaay bi daal di ci am taxaw seetlu bu mu ci indi. bërki démb ba tey euh, Aïda Ndiong coowam li la ñuy waxtaanee ci yenn kaay yu bëri ak dogalu yoon ak euh, yenn ci ay kàddu yoo xam ne am na ci enquête am na ci gëstu euh, bu mu ci def tey jii ci suba gii ñu ngi lire ci xëtu yenn kaay bi ci français ni ministère public contre Aïda Ndiong une bataille si âpre. waaw dafa mel ni kon xeex bi ci wàllu yoon diggante soxna soosu di Aïda Ndiong ak kër jëwriñ ji dénk wàll yoon rawatina parquet bi. moom dafa yàgg nag ndax ci atum 2012 jàpp 2013 ba léegi soxna si mi ngi demlante ak yoon ci wàllu produit phytosanitaire yi ak tamit euh, traque des biens mal acquis yi euh, lan moo làqu euh, ci ñooñee nga xam ne nii ñu ngi leen topp ay ata ngi euh, jëm ci euh, coowal koppar ak jaawale seeni poos ak euh, poosu gouvernement réew mi def na ci gëstu ñetti ngi ñoo ne ci nataalu yéenekaay bi Karim Wade Aïda Ndiong Samuel Sarr que cachent les contre ces milliardaires du PDS. waaw ñoom ñett ñooñu dafa jàpp ni boroomi koppar la nekk ci biir PDS ba tax mu am laaj bu mu samp lan moo làqu rek ci topp gin leen topp ñoom ñetti ñooñu nga xamante ne ay personnalité leen ci biir parti démocratique sénégalais muy Karim Wade Aïda Diong ak Samuel Sarr. ndax gisee mën naa am ci diggante Karim ak euh, président bu Sénégal di Macky Sall grand place soo ko def ci xëtam bu njëkk libération de Karim Wade retrouvailles Macky Idi euh, loolu itam euh, waxtaanee nañu ko ci yéenekaay bi Jules Diop pour la médiation. waaw Souleymane Jules Diop moom mi nga xamante ni moom la dénk wàllu PUDC. nekkoon tamit euh, ki yor kàddu président de la république jege woon fi ay jamono Idrissa Seck moom mooy dox tànku jàmm ngir rek juboo mën a am ci diggante Karim Wade ñu daal di koy libeere wan tamit Idrissa Seck ak Macky Sall daal di gisee. kon loolu la yéenekaay bi daal di siwaat bu baax mu jàpp ne daal kon Macky Sall dañ ko woo rek ngir waxtaan daal di am ci diggante kilifa yooyu. et pourtant Idrissa Seck allié wu Macky Sall la woon en 2012 yéenekaay bi di regard ci xëtam ñoo ngi ciy gis ñaandoon nag président ci 2012 ak li ñu tuddee woon coalition Benno Bokk Yaakaar 10 euh, défections la wax ne Macky lâché euh, par ses alliés de 2012. ñooñu dañ ko bàyyi kon ñoo président Macky Sall ñoom ñoo àndoon. nga gis ci kii di Idrissa Seck Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Bamba Dieye Amsatou Sow Sidibé ak professeur Malick Ndiaye ak yeneen ni kilifa yoo xamante daal ñoom ak mag Sall ñoo doon jëflante ci atum 2012 wante ni at yi di demee bàyyeen di am seen diggante ba tax tey waaw euh, mënatunoo jaaru taal. yéen kaay bii di direct info dafa mel ni def na prolongation ci référendum bi passé waaw wala déet euh, ñuy euh, laajte lan moo tax ba lu ëpp ci ay citoyens yu dëkk ci dëkk bu naan Touba non la ñu voté ñu bind ci français ci xëtu yéen kaay bii di direct info les véritables raisons du no de Touba. waaw moom yéen kaay bi loolu la wax daal di rek jéem a xool lan moo tax waa Touba ne déet ci référendum bi ñu weesu. bu fekkee ni sax dañ koo jiiñoon Moustapha Cissé Lo mu ne ki c'est l'arbre qui cache la forêt kon Cissé rek lañ gis yaakaar ni moom moo tax gars yi normé lu fa wante am na leneen lu luñ waxut lu demee ni ki tëj gin tëjoon Cheikh Béthio Thioune Serigne Assane Assane Mbacké ak yeneen ni kilifa yoo xamante ne amuloon ak yoon jàpp nañ loolu am na explication ba tax déet gi daal di jël ndam li foofu ci référendum ba ca Touba. SOS la évidence xëyee tey waaye SOS su Aminata euh, jëm ci Macky loolu mu ngi jëm ci euh, li yéenekaay bi tuddee échec du dialogue social. échec du dialogue social kon nu ni mel la ndax boo xoolee rek syndicat yi ñi ngi yëngatu ci wàllu éducation di njàng meeg njàngale mi enseignement supérieur tamit. ak it wàllu wér-gu-yaram ba tax ki jiite conseil économique social ak environnemental. jàpp ni ñoom it dañ cee lajj ba tax ñu tàllal loxo njiitu réew mi xëy na mu dugal ci loxoom ngir ñu xool naka la jàmm di amee ci wàllu social boobu. coow la am ca aéroport la yéenekaay bi di laas xëyee tey mu tuddee ko la nébuleuse AHS. AHS nekk rek benn société bu yëngatu ci wàllu aéroport moom daal dafa jàpp ni dafa lëndëm ay mbiram dafa lëndëm. ndax AHS boobu boo xoolee saa yu nekk ñu ngi koy tudd ci ay loxoor ak yu ni mel ba tax yéenekaay bi am ci benn gëstu bu yaatu bu ci amal. pose première pierre bu arène nationale euh, par Macky Sall un rêve devenu une réalité loolu yéenekaay bi di zoom xëyee tey. gént ga kon mujj naa nekk dëgg tey jii la Macky Sall di samp xeer wa nga xamante ni mooy jëmmal tabaxu arène nationale bu fa fecc Pikine chinois yi nag ñoom ñooy tabax boobe arène nationale kon lii arène ñi yëngatu ci làmb ji doon laaj at yi yëpp kon mën nañoo jàpp ni mujj naa sotti. président de la république ci xëtu yéenekaay bi di témoin euh, tabb na général de l'armée jamais en cinquante six ans ce grade n'avait été attribué mu ñuy xamal ni euh, promotion bu historique la ndax mu ngi toll ci cinq étoiles kon juróomi étoile la moom général bi ni daakantalee noogaas di Mamadou Sow moom moo am loolu kon dugg na ci taarixu armée boo xoolee yéenekaay bi nag gëstu bi mu def mooy rek moom dafa jël ay moyens jox arme bi taxaw ci taxawaay boo xamante ni bokk na ci armée yéen gën a naw fii ci Afrique de l'Ouest ba tax njiitu réew mi kontaan ci général boobu daal di koy nommé kon jël beneen étoile takkal ko ko muy juróomi étoile kon juróom fukki at juróom fukki at ak juróom-benn ngi nii lii musul am kon muy loo xamante ni lu am solo la ci wàllu taarix. voilà noggaas la ñu ko tuddee defe naa xaw ma lu noggaas nag mooy fukk d'accord non gaz waaw mooy mooy fukk nee nañ bu daa punir euh, ay soldats yi nga xamante ni moo leen doon commandé. Mhm. da doon tëj ay fukki fan ak yooyu. ah moo tax waaw moo tax gars doon tëj. d'accord c'est parce que lii mooy article bi merci beaucoup pour ces explications moo tax euh, la Kocc Barma waxoon ñun sax mën nañu ko waxal journaliste yi journaliste mat naa bàyyi ci télé ci émission. mag mat naa bàyyi ci réew c'est ce que j'ai modifié code ci barma boo ko waxoon mag mat naa bàyyi ci réew journaliste jar naa bàyyi ci émission <laughs> ñu jeexal ak populaire un sénégalais euh, tue sa femme et sa fille de deux ans loolu euh, le populaire xëyee tey benn sénégalais bu euh, faat jabaram ak doomam ju am ñaari at. waaw loolu ma nga xewee jëye mmh. jëye maa ngi yaakaar nag maa yeewi sax yéen jëye ji ma nga xewee ca États-Unis ba tax na kon boo xoolee sa ba léegi ñu ngi ciy wax. moom nag euh, waa ji El Hadji Diop moom moo def njombe li ñu daal di koy tuumaal lu mel ba tax populaire it daal di ci amal xëtamu njëkk kon ñu tuumaal ko ne dafa faat doomam ak soxnaam moom da doon jot ni dafa bëggoon a xaru moo tax mu def lu ni mel. voilà merci ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Chérif Dia am nga lu toll ci fukki minutes ak juróom pour ndekki euh, tu peux mun nga dellu si waat euh, bu 8h jotee pour journal bi ci wolof puisque 7h44 mooy doo ko jot ca kanam ci diggu ci boori émission bi buy jeex ay boori 9h45 certainement dinañu àndandoo ak Mamadou Mouhamed Ndiaye pour revue de presse bi Bijon ngi fi Zeyna Alfiba ak Exidex les autres vont nous rejoindre tout à l'heure El Hadj Mbaye Garmi la ñuy àndal ni alxames bu jot ci pàcc bi. bi ñu tuddee euh, fàttaliku alors Zeyna euh, tu passeras la matinée ak internet ñun ñu tuddee leen euh, nos aminotes. oui Pape Cheikh on passe la journée comme tous les jours avec nos aminotes tey nag hashtag bi ñuy lancé Pape Cheikh mooy li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaane fan yi yëpp sur les réseaux sociaux muy téléthon bi ak concert bi nga xamante ne defoon nañ ko grand théâtre ñu gis ci ay talent yu bees yu bare bare naka la ko sénégalais yi dundee naka la ko internet yi dundee suñu aminotes yi ñu ngi xaar seen la page fin d'émission dinañ ci jukki quelque rek ñëw joxaat ko téléspectateur yi. c'est vrai que ça a été une bonne idée waaye yow de ku la jox challenge di ci ci xam naa di nga indi ay 10 000 francs yooyu. 10 000 francs cinq xarit rek. plus kay. Karzena mi waaw waaw xam nga 10 000 rek ah, defal collecte de doo ci Facebook am ñu defoon fi téléthon man ci mbedd bi rek laa dem di dugg ci. car rapide di génn am naa 1 million am nga 1 million non si car rapide yeeg si mbedd bi yeeg fépp te 1 laa andi. pourtant nu ruwule de man dama foog ne ay 650 ngay indi ndax ku ne 100 francs la lay jox xam nga da nga xalawee. da nga yaay yu baax yaa ngi fi. sa yaay yooyu ay 500 lañ lay may. déedéet ah yow tamit nag bàyyi seex. ah ñoom laay du ma jox téeméer. ah dëgg la ah, ma jox téeméer maman Kilouska du ma jox téeméer. <laughs> <laughs> merci Zeyna donc euh, euh, loolu ngeen di xalaat euh, lan ngeen di xalaat ci li am bërki démb collecte de dons bi ñu doon organisé ci télévision Futur Média objectif bi c'était cent millions mais daanaka léegi ñu yegg deux cent millions parce que ba tey yéen a ngi continuer di ñu yónnee seen i <coughs> xaalis pour jàppale xale yooyu amee feebaru xol et puis dinga dem léegi ci jardin yu yeewu leen pour fekk fa ki nga xamante ni mooy maître Abdoulaye Niang alors maître Abdoulaye Niang tey daf ñuy présenté. Krav Maga euh, Krav Maga euh, je pense que daaw euh, jotoon nañ ci waxtaan tuuti bu fekkee fàtte ngeen ko il va nous proposer dans quelques minutes quelques exercices yu jëm ci Krav Maga boobule on est en train de l'attendre il viendra ci plateau bi bijou ca kanam dinañu waxtaan ci science comme chaque jeudi mais dafa am loo xam ne dafa la alerté il pare que OMS nee nañu li mu ñu am jabet ci àdduna dafa yokk dafa exploser en fait la ñu wax en 35 ans parce que euh, dañu def benn étude pour xool ñaata nit ñoo am diabète actuellement ci monde bi ñu ngi toll ci 422 millions de personnes atteintes de diabète actuellement alors qu'en en 108 millions kese la ñu woon e boo dee xool nombre de décès dus au diabète wala maladie yoo xam ne diabète moo ko joxe toll na ci 1,5 million en 2012 hmm. donc là dañuy alerte nit yi xool comment faire pour euh, redresser balance bi si je peux parler comme ça mm. ndaxte courbe bi ñu defar pour euh, wane euh, nombre de diabétiques gi ci àdduna bi courbe croissante tey ci suba nee nga ni jabet euh, ñaari ñaari ñaari xeetu jabet moo am ñun fii bi gën a am bi gën a ëpp lu muy am bu Sénégal mooy jabet 2 bi boobu nag yi koy indi ndekete mën nañu ko éviter li koy indi en général surcharge pondérale la wala sa hygiène de vie c'est-à-dire li ngay lekk li ngay naan est yaa ngi def sport boo deful sport exposé bu dee li ngay lekk dafa bari sucre wala dafa bëri graisse tu es plus exposé pour am jabet 2 bi moo gën a bëri Sénégal boobu nag boo ko amee régime ngay mun def bàyyi am sucre de de type 1 bi moom insulinodépendant la piqûre d'insuline ngay mën te boobu moo gën a doy waar yàlla ñu yàlla may wér je pense qu'on peut mettre euh, premier élément bi ñu gis nii pendant que Bijou parlait pour expliquer encore li mu expliquer léegi nii lan mooy diabète en tout cas euh, ñun dañoo tiitoon ah, euh, lim bu feebar boo xamante ni 422 millions nit yi koy am di wàññeeku mais ndekete mu ngi gën di yokk c'est dafa yokk de c'est abusé oui dundin bi lekk bi moo changé déjà appuyé nit ñi aussi tamit war nañu defe naa ne adapté wu par rapport ak Euh, jamono. parce que bu ñu demee ba nga xamante ne par exemple xale yi léegi ci defatuñu sport lakkatuñu maanaam lu ñuy lekk comme nu ko Alfie di waxee. Mm-hmm. je pense que ne mën na créer ay problème andi la problème mu foie ba diabète nga mën ko ci jëlee. Mm-hmm. actuellement 8,5 pour cent ci àdduna bi ñoo ko am. d'accord adulte yi. 8,5 pour cent ñëpp am nañ diabète Sénégal bu ko dee xool rek mun nga ko euh, jéemee xool fii ko. koo laaj mag boo gis danaan la dama ja dama am jabet dama war a def régime mhm. et instant boobu ñuy def régime c'est trop tard parce que maladie bi bu xasee ba ñëw du wérati surtout que euh, type 2 bi dafay nekk sa yaram te doo ko xam donc balaa nga koy xam da ngay dem ay at yu yàgg muy euh, jabet boobule euh, ñaar yooyu yëpp ak ni ñu koy expliquer je pense qu'on peut regarder élément bu ndaw bi mm. ci français et puis juste après nga expliquer ñu Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans Il en existe deux grands types. Le type 1, dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et à un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage

voilà je pense que euh, déglu nañ ko ci ci ci ci français mais lii indi jabet bi moom mën nañ ko moytu. alors sauf type 1 bi nga xamante ne insulin dépendant la sa pancréas bi lay jógee. Mm. pancréas moom mooy defar li ñuy tuddee insuline insuline lan la bu fekkente ne sucre bi dafa ëpp si sa biir yaram bi insuline bi mooy dem wàññi ko. bu fekkente ne ëppul du du pancréas bi du ko produire mais bu fekkee sa pancréas mënu ko produire moom mooy insulinodépendant tu es obligé de def ay piqûre euh, d'insuline pour mën a xeex contre sucre bi nekk sa yaram bi. Mhm. beneen bi nag li koy gën a joxe mooy par exemple le fait que ñuy lekk duñu de duñu duñu duñu duñu def sport. Mhm. le fait ñuy lekk sucre bu bëri le fait ñuy lekk aliment yoo xamante ne dafa bëri ay graisse. Mhm. loolu moo koy gën a andi ak euh, tox bi tamit daf koy indi donc du coup euh, actuellement ci prévention la ñu bëgg dox parce que boo ko xasee ba am encore une fois c'est trop tard mm. tout ce que tu peux faire c'est des régimes mais pour prévenir ko c'est-à-dire des sports lekk euh, lekk boo xamante ne alimentation saine et variée éviter di tux éviter di lekk lu am sucre éviter di lekk lu am graisse pour nga xamante ne di nga ko mun éviter parce que actuellement 422 millions de personnes encore souffrent du diabète dans le monde et li ci gën a metti mooy complication yi mu lay indil par exemple boo daggee doo gaaw a cicatriser wu mm. mun na indi ay euh, wàññi sa gis-gis mun na laal sa yeneen organes yi ba nga xamante ne yeneen feebar yoo xam ne mun na la rey lay indi voilà ñu ni ci am solo yëpp chaque jour ñu sensibiliser leen ci n'est-ce pas Alfie euh, que euh, lekk bu baax bi itam dafa am solo. dafa am solo parce que bijou mi ngi wax euh, quand lekk bu saf suukar ak graisse yi muy wax mais il faut juste rappeler que graisse dafa am graisse insaturée ak graisse saturée yoo xamante ne fii nit ñi duñ koy faral di di jàll te la dernière fois wax nañ ko wax nañ ko. muy lu ci mel ni ay euh, graisse yi nekk ci avocat lu ci mel ni ay huile de noix huile d'olive yooyooy graisse yu baax yi par rapport ak ay dibi yoo xamante ne graisse yi la ñuy tànn wala huile d'arachide bi nga xamante ne ñun fii moom la ñuy toggee en grande quantité donc il faut rappeler que yooyu moo koy joxe maanaam ay dëwlin ay euh, ceebu jën yu niin ay maafe yu diw yi di tàmb yooyu ñuy négligé di ko lekk pendant des années mm. waaye yi ñu bëgg man saa yooyu saa yoo waxee ni baaxul ma ni la nii waaw ay ay d ay maasa yoo xam ne da ngay bàyyi ba diw bi génn ceebu jën yoo xam ne dangay ngay da ngay dànk diw bi diw bi sotteeku sa dañ naan nga bàyyi ba diw bi ba diw bi génn nga soog fay sa gaz après nga jël diw boobu di ko lekk boo boole ko ceeb ceeb bi nga xam ne euh, dafa am suukar nga koy lekk pendant des années kon dañuy xaru bu grave <laughs> ah, déggoo courbe courbe bi ñu defar di wane diabète nu muy évoluer ci monde bi maa ngi lay tooñ naan Afrique ñoo ci gën a tuuti la actuellement mais ñi ngi accélérer pour yéeg dem euh, pour tolloo ak ñi ëppale yeneen pays voilà mais ñëpp courbe croissante la ñu am amu ci benn pays boo xamante ne courbe bi wàcc na pour wane nekk wàññeeku na c'est que si habitude alimentaire yi tu sais bu njëkk ba fast food yi bëreewutoon nii mais léegi nit ñi heure kenn dematul sa kër pour dem añi fa da ngay dem vite fait dugg ci benn fast food jënd fa loo xamante ne lu lu ni voilà fa déjà lu niin la lu neex la lu gras la wala lu saf suukar loolu tamit bokk na je pense si euh, euh, li nga xamante ne moom moo ko yokk prolifération des fast food dans le monde bañ ne ba nga xamante ne pour lakk suukar bi nekk ci benn canette rek il faut une heure de sport boo naanee benn canette il faut faire une heure de sport pour lakk suukar yéen gëstu ngeen de ah, ba xaw ma yëpp cuur kong bi ma lekk démb diw ga bëri yow yow <laughs> ma deseeroo sama sama sama sama kii bu baax yooyu noonu ñu jaay ci mbedd yi ñoom hamburger <laughs> guddi gi ma teg ci dëgg la de donc c' est c' grave li ma def nii ñàkk information ah, baaxul de. ñàkk informé wu baaxul de. léegi yii yëpp xam ngeen ko yéen toogaale mën nga lekk mën nga lekk ceebu jën mais de temps en temps deux fois par semaine nga def salade añee ko bu ma naan salaat añee. ceeb bu waaw bu ma nee salade añee ko wala di lekk di ci boole légumes maanaam booy lekk ceebu jën mën nga dagg sa benn salade boole ko ak moom parce que dafa lay permettre quand ci biir yow doo xam ni muy fonctionner mais bul bul kii ni salade boobu ngay lekk bu ko négliger parce que am na lu bëri lu muy def ci biir loo xamante ni ñun duñ ci bàyyi xel voilà en tout cas yàlla nañu yàlla may wér donc boo bëggee wér itam am na ay conduite yoo xamante ni boo ko ah, teniree rek suñu borom ah, mën na laa ah, euh, dimbali ba yenn yi du la dal xam ne ñoo ko jot a am nag ba noppi yàlla na suñu euh, seen euh, li ñuy lekk yenn saa yi mu neex lool nga topp ñambaxtaan bi <laughs> nekk loo xamante ni waroo. waxal de waxal de ah donc il faut faire très attention. ak paa lekk plus de six ku du ceeb. waaw ok lekk cere yi yooyu yëpp ay xeetu gaaruwaale la rek Ndiaye ah. loolu yëpp gaaruwaale la rek Ndiaye <laughs> gaaruwaale la rek Ndiaye gaaruwaale la <laughs> yooyu yëpp mën na ñàkk. parce que parce que parce lekk bu njëkk ba ak léegi bokkatul léegi ñu lekk yi dafa yàqu. Euh, bëri na ay produits chimiques euh, lekk yi bëri na ci li muy euh, lu muy li muy faat sax moo ëpp léegi lu muy. li muy defar lu muy defar lu muy defar quoi donc nañu nañu gën a moytu. c'est que nit ci production bi rek la ñuy xool ak naka la ñuy def pour am bénéfice finalement santé wu nit ki duñ ko prendre en compte ci li ñuy defar mais diabétique yi lekk chocolat tamit. yooyu yëpp day sori. voilà <laughs> ñun en plus de en plus de en plus de lekk bi ñuy leen di euh, euh, xelal itam chaque jour ñu wax leen def leen sport parce que am nañu yeewu gym tous les matins euh, normalement léegi dañu war a ànd ak waa maître maître Abdoulaye Niang pour mu jox ñu ay exercices yu jëm ci aar bi ñu tuddee Krav Maga je pense que tu peux les rejoindre ci jardin yu yeewu leen il est exactement 7 heures et 56 minutes on a aussi la possibilité déglu El Hadj Ndiaye Siggi bonjour comment ça va et Euh, ñaar yëpp mën na nekk ah bu ñu neexee ji fi jaafa jëf ko sa jëfa jëfa jëfa jëf bu ñu neexee itam euh, ñu dem ci euh, carrément fële ci <laughs> jardin yeewu leen noo ko noo ko bëggee yow danga ko bëgg a puluf ndeysaan tee ngaa dem rek nga naan xaw ma dangay noos noos bala bon d'accord alors le temps ngay dem bay Ali Patel ci jardin yi on propose El Hadj Ndiaye Siggi la mu woyoon jagleel ko <laughs> ñëpp bonjour comment ça va et comment va la santé ça passe souvent euh, dans cette émission ce matin comme dañoo yeewu ak feebar euh, diabète la ñuy waxtaanee ndax euh, gëstu bi nga xam ne gis nañu ni OMS def na ko ni lim bi mu ngi gën du yokk surtout fii Sénégal voilà donc ginnaaw bi ñu joxee suñu xalaat on n'est pas des médecins ni des docteurs waaye xam nañu ni bu ñu amee ñu euh, jël ci wàllu comportement mën nañu éviter yenn ci ay feebar euh, moo tax euh, ñu yeewoo loolu tey dañu koy accompagner nag ak woy bi nga xam ne ni malade sax bu ko dégg xelam mën naa dal El Hadj Ndiaye Siggi huit heures euh, jot na merci El Hadj Ndiaye way la bu euh, yàgg mais fu ñu ko dégloo rek euh, dañuy kontaan dégg naa sax day dalal xelu malade bonjour comment ça va et comment va la santé en tout cas ñu ngi nuyu suñu xarit yi ñuy seetaan ci hôpitaux yi nekk Sénégal yëpp ak fu ngeen mënti nekk hôpital principal ku lim Dioum hôpital Grand Yoff clinique yi yi nekk Sénégal docteurs yi sages-femmes yi aides-soignants yi ak yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm et comme on souvent soyez toujours patient avec nos patients huit comme jot na dañ leen di bàyyi ak Chérif Dia. ci jotaayu xibaaru suba gi bu noppee ñu àggali ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futurs Médias jërëjëf Pape Cheikh wàllu wér-gu-yaram googu nga jeexale sax moom la ñuy leen ndax tey ñaar tey juróom-ñaari fan ci weeru avril mooy bis bi àdduna wërngal këpp jagleel wàllu wér gu thème bi nag euh, mbiram jabet la ba tax rek jabet di def ay loraange fii ci senegal ki dénk centre mark Sankale di professeur Saïd nuru Diop dellu si ci jéego bu nguurug Sénégal di def jëglal ko wàllu xeex jabet ndax am na benn jumtukaay bu ñuy wax M jabet maanaam di sensibiliser ni ñu jaalee ko ci téléphone portable yi muy lu am solo ñu déglu ko ci micro maam Biram Diouf. jabet lan la moo di ni tey jii dañu bëgg fu nit nekk ci ci Sénégal fu profession de la santé kuy faj ci Sénégal foo nekk ki sénégalais bu mu manti doon nga mën a jot ci bataaxal yi nga xam ni moom la moom la ñu jagleel jabet nga mën a xam lan mooy jabet ki amul jabet xam lan mooy jabet xam naka la koy mën a moytu ki jabet ba pare xam naka la mën a def ak jabetam ba jabet bi ko gaañ ki nga xam ni mooy faj bu jabet bi dikkee ci moom mu xam naka la koy faje ak lan la ko mën a wax ak nan la ko mën a dëfale bu min na amoon nañu ñaari junni euh, lu mat ñaari junni nit yoo xam ne inscrire nañ ci ba doon jot ay bataaxal ci seen ci seen ci seen téléphone. li ñu bëgg nag bi yoon mooy balay Ramadan bi nga xam ne dañ commencé beneen campagne pour Ramadan bi boobaa nañu ñu ñu ñu góor góorlu ba am euh, juróom fukki junni nit lu mu néew néew yoo xam ne dañuy jot ndax bataaxal yooyu pour xam nañuy toppatoo seen jabet ci biir Ramadan wàllu wér gu ba léegi démb na gouvernement bi adopté na ay projet de décret yu am solo bu ci njëkk mooy wàllu statut personnel établissement santé publique yi loolu nag ñaxtu la bu syndicaliste yi doon ñaxtu lu yàgg ba ci des mooy projet bi jagleel rek wàllu ni toxee fii ci lio public yi di wàllu cigarette ak yu ni mel ndax dañoo jàpp ni daal di tux ci barab yu ay nit di dajeeg yu ni mel du jaadu ba tax démb nag lan daal di adopté boobu projet de décret ñu wax lu soxal wàllu tëj gin tëj frontière Sénégal ak Gambie loolu nag am na ay loraange yoo xamante ni mu ngi koy jural yenn village yu nekk ca région bu Ziguinchor ca diwaan bu naan Kadampa Kataba 1 Kataba 1 nag foofu maire ba sax moom démb ba muy jàkkaarloo ak askan wa ci benn xew-xew wax na ni daal ñaari réew yu faaw rekk ñu daal di toog waxtaan ngir ut saafara boo xamante ni bu anto eh, jafe-jafe yooyu dina mën a dakk ñu déglu Abdoulaye Badji ci micro Boubacar Diassi frontière bi vraiment ñun dañ ñu découragé dañu découragé en tant que population parce que ñaar peuple ñu nekkoon ensemble ñu développé une activité ensemble et cetera ñoo ñoo ñoo dem ba à un moment d'une décision prise ki euh, sommet bi une décision un prix ne se retrouve plus kenn du dem Gambie Gambie tam du euh, Sénégal donc situation bi vraiment. dafa catastrophe boo jëlee exemple Touba Tranquille ak situation bi seen produit day toog fii di pourri euh, du dem du mun a dem euh, Gambie ça c'est des conséquences très graves par rapport à l'économie ci wàllu woowu di fàttali ni rek OMVG di kuréel gin dënk fleuve Gambie moom it ñu ngi amal ay waxtaan di xool saafara bun mën a indi ngir tijjiwaat frontière yi wante jàpp na ni ngëneel li mooy tabax pont bu dox ci diggante ñaari réew yooyu ñu wax ba léegi lu soxal ñaari détenu yéen dencoon ca Guantanamo te Sénégal dalal leen Amnesty nag ñoom rafetlu nañ ko ne nguuru Sénégal def na la ko waroon ba tax mu ngi leen cay gërëm di àddu rek ci askan wi ak journaliste yi ñu xool ne say waxee lu nu mel ngir bañ a tiital nit ñi ñu déglu ci soxna Fatim Nene Diop moom nag mu ngi bokk ci Amnesty International ci micro Aminata Mbaare Sow du du gain en matière de xaalis wala de lépp mais gain en en en en tant que contribuer wu si euh, euh, respect wu àq ak yelleefu doomu aadama loolu defe naa ne gain boobu amul amul amul prix euh, Sénégal engagé wu na comme yeneen dëkk yu engagé wu nee nañ vingt cinq vingt six pays ñoo ñoo accueillir ba tey ay ay prisonniers wu Guantanamo donc ñun ñu ngi leen di jaajëfal te di wax ne tamit warul indi njaaxare si nit yi. parce que nit yooyu kenn condamné wu leen amul benn benn charge boo xamante ne ne day wane ne dañoo def dara si yëfu yëfu terrorisme donc bu ñu leen indi fii dafa mel ni daal nit yoo xamante ne ah dañ leen tëjoon si yaama neex noonu rek ñu génne leen si jàmm ak salaam donc sénégalais yi li ñu leen di ñaan tamit mooy bu ñu bañ a tiit te yi tamit ak média bi bañ a indi njaaxare si nit yi parce que niñ siy waxee nii day tax nit yi tiit wàllu njàng ak njàngale ca boqal nekk ca région bu Saint-Louis foofu nag jafe-jafe yi am ci njàng mi tax na ñoom ñu daal di daje xool nee say def ngir indi saafara ci lu ni mel rawatina xale yi nga xamante ni dañuy teel a bàyyi lekkool wante tamit jafe-jafe ci wàllu lycée bi nga xamante ni amut ca diwaan ba ba tax gone yi dem ci yeneen i dëkk yi gën a sori di fa jàngee loolu nag moo taxoon ñu am ci benn ndaje ngir daal di sargal ñëpp ñu taxaw ngir njàng meek njàngal mi gën a mën a mucc ayib ci boobee diwaan ñu ànd ci reportage yu Ousseynou Diop ak Habib Seck. commune bu Boqal toll ci juróom-ñeenti kilomètre ci département bu Dagana lañ doon amalee sargal bi ñu doon sargale yenn ci ay élèves yi nga xamante ni dañu ràññeeku ci wàllu njàng mi jamono jojee tolloog njàng mi tàggatémbe ci diwaan bi dañuy faral di wax ne enseignants yi généralement dañuy eh, eh, xaalis rek la ñuy laaj mais ñoom enseignant bokkal waxoon naa ko daaw wane nañ ne enseignants yi du xaalis rek moo leen intéressé au moins am na enseignants yoo xam ne yi xam nañ luy jàngale xam nañ ne jàngale sacerdoce la loo xam ne lii da nga koy bëgg euh, ñu def ko moo tax ñu taxaw pour vraiment jàppale leen pour ci journée yu mel nii di bari ci réew mi. ndaje boobe nag may na amical bi doon amal mbir yi. ñu waxtaan ak askan wi. rawatina ñax gouvernement bu Sénégal moo di leen fa lycée waaye tamit taxaw ci ay jafe yu mag yi xamante ni ñu ngi koy dund jamono jile. ci bokkal am nañu ay jafe-jafe ci ay salle de classe yu ñu war tabax am nañu ay jafe-jafe ci ay écoles yu ñu war a tabax am nañu ay jafe-jafe ci collège bi ci ay lycée boo xamee ni tey c'est une demande pressante. ngir xeet li njàng mi ci commune boobee nga xamante ni ay jafe-jafe lay dund. juriste bi la di mu ngi woo doomu bokkal yi ñu dugal ci seen i loxo. day doog a commencé mais incha allah bu ñu demee ba sa cappaandaw la ñëpp dinañ gis que ne euh, waa bokkal taxaw nañu ay doomu bokkal taxaw nañu pour jàppale seen village jàppale seen i doom. amical enseignant yi la ñu bëgg jamono jëlee bokk na ci njàng mi ci bokkal ñu gën ci taxaw xale yi nga xamante ni ñuy bàyyi itam ñu daal koy dakkal waaye nag seen yitte mooy fexe commune bu bokkal ñu gën a soqale njàng mi bala ñoo jeexal xibaar yi rek fàttale xew-xew bi am tey ca ngoon ca Pikine njiitu réew mi nag moo fay dem moom Macky Sall daal di teg xeer wu njëkk ci wàllu arène nationale ba nga xamante ni nekkoon na jooytu ci ñu yëngatu ci wàllu làmb ba tax na kon loolu ma ngay am tey ci ngoon ca Pikine Pikine Nord ca wetu Technopole ba kon mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi di leen sant di leen gërëm bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mu daal di wéy seen émission yeewu leen xibaar bi ñu wax sànq dina neex alaaji Mamadou Mbaye Galmi Euh, Chérif Dia mu nekkoon jotaayu xibaaru suba gi euh, ñu ngi ko ci gërëm bu baax ngërëm ñeel itam rédaction bu télévision Futur Média ci diggu bëccëg gi euh, daañu àndaat ak ñoom boori 13 ci beneen jotaayu xibaar mën ngeen tàggoo ak kumpa itam ñu fàttaliwaat leen ko ci kaw ngeen di yër suñu site internet bii di www.igfm.sn lépp leen soxal soxal ci ay xibaar di ngeen ko am en temps réel ci waxtu wu ne loolu bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel moo tax fajar gi ñu leen koy fàttali fileeg ay minute ci yoon daañu ànd ak euh, suñu correspondant yi tey nag euh, bëgg nañoo dem euh, fekki leen fa ku mel ni Salif Sow moo ñu teewal ci banlieue bu Dakar en attendant El Hadj Mane Garmi ñu ngi lay gërëm ni alxames bu bu jot ci sa teewaay ci yeewu leen bi tey jii daañu fàttaliku géwél yu mag yi. waaw Baye Cheikh xanaa rek di nuyu mbokku téléspectateurs yi ak di sargal tamit bu baax a baax sénégalais yi. li tax ma delloo si géwal yu mag yi. Mhm. xam nga dañoo génn ci 4 avril. indépendance dëgg la. Euh, il faut nu il faut ñu faral nag di leen fàttaliku. Mhm. parce que ay mag lañu yoo xam ne dañoo def ci réew mi. Mhm. ci mag ñu gunge ci réew mi mag ñooñu dëgg-dëgg ci la bokk. ma génnewaat leen rek. Euh, nit ñi xol yi naat. Mhm. ba pare nu ñaanal leen yàlla. débat bi bërki démb 4 avril ci guddi bi bi ngay génn ci euh, télé bi. Euh, mhm. moo nekkoon koppati bi couleur bi man fa ma toogoon ak ñu mhm. bëri sax ñu ngi doon wax. naan mënoon nga def beneen beneen koppati ñii ne ànd nañ ci koppati bi. koppati bi daal nekk débat. <laughs> waaw débat de koppati man loolu xawoon na ma jaaxal trop euh, te léegi gis nañu da indiwaat koppati léegi hmm. xale yi sax dañu koppati léegi Sénégal yëpp ngi koppati xam nga a xam nga xam nga damaa dem rii ma met cinq keroog bi ma solee chapeau te ñëw ci événement bu mag boobulee hmm. ma jaar rek rii ma met cinq waa ji ne ma chapeau yi jeex na ma ne ko kon de dëgg dëgg waa war na fay <laughs> mu ne ma ne dafa dem congé gan mi xam nga ne da ngay revenir. waaw war na fay ko dëgg dëgg mu ne ma de ñetti ko ñetti ñetti rek di ñoo fi des gan mi. <laughs> wallaay xam naa kon dafa dem congé mais coppite bi tamit noonu la Baye Cheikh xam nga euh, Baye il faut dans la vie il faut innover. <laughs> <laughs> Euh, mooy nekk dress code bi. Ah, xam nga li xale yi def euh, soirée soirée dress code xaw ba guddi dress code. soirée na biir nag dress code bi. mooy koppati euh, man commandé lu naa juróom parce que bëgg naa sol juróomi mbubb mais Baye Cheikh bés boobu de sa bés de wallaay bëgg naa sol juróomi mbubb balaa nga koo xam mhm. ñu àgg ca bés ba wallaay insha allah parce que ak say dees uh-huh. nit bu la bëggee da nga koy xam wallaay wallaay li koy njëkk a yëg sa ruu sa ruu moo koy yëg nit nit nit nit bu la soppal sa ruu daf koy yëg. nit nag bu la soppi sa ruu daf waaw dafay dafay mel ni ci yow la bokk. soo ko gëjee gis da nga koy namm. dëgg la place boo dem dañ koy waxtaane waaw te loolu nag dëgg xale bi noonu la mel ak man de. sa bés boobu bi lay balaa ci balaa xam ne sa bés la. ñu àgg ci <laughs> euh, dinañ waxtaane ci guddi geeg programme am lan lañ ci nas euh, dinañ leen ci jun jun tuuti euh, ca kanam en attendant dañuy dem ci jardin yeewu leen fekk fa Zeyna mu ngi ànd ak ay xale xale yi euh, dañuy def euh, Krav Maga euh, Krav Maga mooy xeetu aar boo xamante ni ñu ngi gis ni bi mu duggee ak Sénégal ak léegi yàggul mais on se rend que nit ñaa ngi koy gën di def Zeyna on vous laisse le soin nga présenter ñu kiñ ci àndal tey muy maître Abdoulaye Niang. Euh... xam ngeen ne nag jeudi bu jot euh, euh, art martial lañ leen di addee ci biir yeewu leen Pape Maga itam miin ngeen ko ci biir yeewu gym waa gendarmerie Colobane miin ngeen leen ci biir émission bi tey ñoom la ñu dalalaat ñu nar ñu wan yeneen technique de self défense alors maître euh, Abdoulaye Niang non Mamadou Niang maa ngi lay nuyu.

ay techniques yoo xamante ne nii par exemple sama ñaari booy yi nii am na yenn technique yu ñu mën a présenter moment bi nii. ok. policier ah. fii dañuy attaqué couteau ah. waaye paaka 45 degré non non bi du pour gaañ. voilà yii ay technique yoo xam ne technique sécurité la quoi parce que nit ki il faut nga am noo koy neutraliser pour mu bañ a riposter sinon tamit boo bëri yërmande bu mu ëpp da retourner sa kaw te yooyu noonu da koy éviter daal. waaw Krav Maga boo xamante ne la boo defee li ngay def ba pare dama fee yoxoo su moom doo fa nekk di taxawaalu di xaar ñuy commentaire wala yooyu noonu parce que yooyu noonu yoo xam ne léegi mën ngeen ralentir technique yi pour ñoom ñu gis technique yi fii waaye dafa ñëw gauche droite ba pare ñëw pour dugg ko comme xeex ni ñu koy façon euh, toujours genre xeex yi moom am toujours ku dóor rek ba pare day jéem a wàcc pour jéem la dugg léegi moom dangay gis day def retrait pied devant bu mu ci kanam day def retrait pour waaj bañ koo jàpp léegi sol bi muy sol bi loxo gauche bi moom mooy tax waa ji du mën a pénétrer ci gardam boo leen xoolee fii bu ñu ko ralentiré def ko ndànk mu ñu xool fii dafa bloqué bloqué xoolal ba muy dugg gis nga tànk bi mu bëggoon jël bi gis nga loxo bee mu sol bi moom mooy tax waa ji du mën a jàpp tànk yi léegi day def rotation bés bopp bi pour déséquilibrer ko li war tax waa ji di daanu après mu dóor voilà après def clé clé bii nii mu def bi nii loolu noonu pour méttatal waaj nga xamante ne même bu ko fi bàyyee après waaj du am temps pour riposter moom dina mën a am temps boo xam ne dina euh, dem yoonam ah. léegi fii lira kii bi mu def bi fii nii par exemple da dox nit ki ñëw wane ko ginnaaw agresseur bi teg ko couteau pour am lu mu koy demandé lu ñuy njëkk a def mooy dañ ne la technique bala nga koo def toujours da ngay jéem a désorienté arme bu ñu la braqué bi ba pare bala ngaa def dara parce que leneen loo fi def paaka bi mi ngi sa put bu la rende yow voilà da ngay da ngay euh, danger bi ba pare nga door def sa technique yi nga mënta def moo tax fii gisoo loxo bi dafa def prise fii nii waaye gis nga mu génn ci poxotaan bi oh, jam ko mais ba tey jam na ko mais paaka bi moom nanguwu ko pour jam ko ko ah, boo leen xoolee bu doon dafa téye paaka bi jam ko ko eh, laa moom mooy agresseur bi mais moom technique la def pour agresseur bi moom moo jam boppam parce que paaka bi mi ngi ci loxoom ba léegi fii nii si légitime défense la bokk ba léegi. mais bu récupéré paaka bi nag boobaa foofu moom mooy doon agresseur bi. d'accord voilà defa ko ko. léegi da nga koy ralenti ñu décortiquer ko ah. fii li muy njëkk def day téye poignet bi visé boo xamante ne nii couteau bi du nekkati ci danger bi. coup de fesse bu muy dóor moom mooy tax waa ji wu. fii waa ji mën a def fii benn doole gis nga. waaye parce que la moo tax ñuy insister ci loolu. parce que mën nga def benn fekk ne loolu nga def baaxul. ok te waaj a ngeeg paaka bi bu daanoo de jëlal paaka bi ñëw songa mm. moo tax toujours dinaa finition day set da ngay def nga leer na yow fii boo demee euh, di nga mën a rëcc daal. ok léegi yow lii nii xëy na kii euh, Mohamed technique bi rafet fii bi technique protection rapprochée la mm-hmm. noonu la ñu évacuer nit mm-hmm. fii waa dafa ñëw laaw Mohamed fii mu dóor. def rotation gis nga léegi poñe ko souvent fii nii xale yi moom toujours muy mag ak ñëpp Sénégal fii kuy xeexal sa morom toujours poñe ngay jëkk a xalaat mais bu ñu la poñee voilà technique boobu mu def bi nii lii ak ku mënti doon dangay ngay déséquilibré wu parce que nit ki bu la poñee ñaari loxoom la yor léegi moom xaloon yëpp mu ngi ci lu mu poñe bi dóor bu ñu koy dóor bi fii nii ci pompe bi kooku noonu day tax moom du am conscience tranquille ci lu muy def bi yow le temps moom muy réactionné nga def rotation parce que rotation boobu noonu Mohamed dafa de rotation kii bi as dafa de rotation bi fii gis nga boobu dafa téye benn loxo pour lan parce que bu téyewul dara ci moom bu dóoree waa ji day day bàyyi mais moo tax mu saisir benn loxo bu dóoree léegi rotation bi mu def moo tax waa ji da koy woon ginnaaw foofu noonu moom day perte équilibre am doo am temps riposter voilà deuxième bi yow da kiiwal bii dafa dafay ci loxo waa ji gis nga day dóor direct ci kanamu waa ji mais le temps waa ji delloo loxo bi continuer mu def ko prise fii nii day daanu continuer moom fii day def clé bras pour dëpp ko parce que moment bii nii waa ji mënul retourner tant que loxo bee dañul gis nga mu ñëw tëj ko voilà non fii moom day continuer parce que lii technique sécurité la ah, voilà gis nga lii pour booy yóbbu waa ji gis nga fu mu toll da koy évacuer moment bii nii mais boo ko évacuer da koy sëggal sëggal bi mooy lan pour bañ bopp bi dara ci loo xamante ne kiiwul moo tax dangay ne da ngay def rotation clé pour bañ a siggi ñaaree bi sol loxo bi ngay teg ci bopp bi. xam nga lu ma gëm coach ah. Mhm. Euh, maître plutôt euh, que li ngeen di def si biir yeewu leen kese doyul. ndax clé yi ak technique yi ku ko bëgg am. foofu mu ñëw gendarmerie Colobane am nañ tamit même collège secrétaire tamit ñu ngi foofu pour di soirée yooyu noonu ok l'essentiel daal Draw Maga pour ñëpp la pour ñëpp la du pour mag rek du pour xale rek pour ñëpp la agresseur yi sonal nañ nit ñi ah oui dafa jot de foog ñu jàng ko j'ai vu aussi que am ngeen ay t-shirt bees yoo xamante ne def ngeen si seen adresse ak seen i ay numéro téléphone est-ce que mën nga ko wax téléspectateurs yi bien 626 94 59 mooy sama numéro téléspectateurs yi loolu mooy numéro bi nga xamante ne mën ngeen ci woote ngir mën a jàmm jàng euh, euh, gendarmerie Colobane Krav Maga xam naa ne naka du ñàkk dinañ leen dalalaat ci biir euh, yeewu leen ngir rek jox leen yeneen di technique dañ leen di bàyyi ak Pape Cheikh parce que man balaa yeewu leen di jeex léegi nii sax damay combat ak booy bu ñu ma sotee sax maa leen mën Pape Cheikh at toi merci beaucoup nekkoon euh, yeewu gym tey da nga ñu indil euh, Krav Maga 8h20 mooy euh, doog jot ñu ngi leen di la encore bëccëg bu neex ci télévision Futur Média tey Alfi di nga ñu toggal ca kanam boule de coco au Nutella. bàyyi bëgg ay affaire boule. Ah, pourtant bii su ma joxe bëri boule mënu bi tey. ah ok d'accord Bijou moo ne ma naa ko defal ay boule de coco. xam nga moom lu xelam nekk rek. Pape ci la ñuy dem tout tout ce <laughs> <laughs> ci kanam. boule de <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. nekk benn recette bu assez facile Pape ah, kanam rek suñu suñu commencé expliquer ku nekk di ko mën a réaliser sa kër. voilà boule de coco au Nutella euh, dinañu euh, waxtaane liggéey itam euh, mm-hmm. d'ailleurs léegi nii lañ ciy dem sax ah, su fekkee noppi nañu ak yaa ay dara sinon matin un tout euh, histoire de, euh, de de de souffler un tout tey <laughs> dafa mel ni télé bi dafa am épidémie de biddanti bu fi am. et de ah, bleu et de et de et de et de bële ah, eh, dàq de. sama dàq de oh, ndax. ndax bleu la. yu ñu kase la ah. bleu kase la waaw parce que ñeenti juróomi xeetu bleu ngi fi. man daal dama di ñëw rek fekk benn diw ma seet couleur couleur diw bi rek laa jël bu diw <laughs> waaw waaye sax nga ne bokkul man de. <laughs> <laughs> dañoo waroon def dañu ko waroon sondage ci euh, ci Facebook bi rek Zeyna li jëm lool loolu ñu wax ngeen wax ñu euh, ban bële dàq juróomi bële yi ngeen gis. voté leen ci bleu yi sama bleu bleu élage bleu bleu bleu bleu bleu tonton mag bleu bijou wala bleu bleu ay dara. sama bleu ñaari bleu. vote bii mbay du ma ko la biiju <laughs> ay ca kaay la ñu voté na biir. <laughs> voté leen ci euh, voté leen ci Facebook bi ngeen loolu. <laughs> oui en plus vous aurez les photos euh, wax leen ñu ban bleu moo dàq sama bleu bleu euh, yéen nag da ngeen baax te bëgg ma lool. yéen ay mucc campagne déguisée campagne déguisée campagne déguisée man aw ma man vraiment aw ma fayu sénégalais yi parce que ñoom ñoom ñoom ci lu ma dugg ñu ànd ceeg man la may def bu baaxee ñu d'accord ci même bu baaxulee ñu d'accord ci donc vraiment euh, dama leen bëggoon dama leen <laughs> dama leen bëggoon gërëm ah, euh, ci bëgg bi ngeen ma bëgg d'abord ci campagne bi la bokk <laughs> ma xeex daf ma nii waaw <laughs> waaw Mbaye <laughs> El Hadj wax ak sénégalais yi parce que man gis naa ne ñu ma bëggee. waaw ah, bu la diw rek may. <laughs> bu ñuy jotee kenn du la say may bu bi je ma ni wóor yi bu doon élection man la ñuy votel mais xaw ma yow nag. tey suma benn mag moo a sañseel nee na si soxo donc gis nga fii mu génn nii. man yow laay votel yow laa votel. xaaral ma génnee baat bi ngeen gën a gis. laay votel rek. te ma teg ci musoor bi sax nag. Eh, mais amul vote yërmande ah. yow laay votel yow bi voilà seetaan. fii ay nit ñi dañ la bëgg dañ lay seetaan sax nii waaye man la gën a bëgg quand même. dëgg la xam nga xam nga fan yii dama xew. waaw <laughs> fan yii dama xew nag Baye xale yi man lañ bëgg dañ may wër dama ci guddi dama toog sama benn xarit jot benn <laughs> message jot benn message je suis fan yow sama moo lay voté. ah yow tam ak ah, ñoo bëri. <laughs> Ah, bëgg téléspectateurs yi ba dañ laa jaral démb yàgg yàgg téléspectateurs yi yéen a fanaan. Mm. Euh, nga yeewoon ak ñoom mais vraiment man la ñu gën a bëgg kanam. loolu nga foofu loolu courage ci sa kanam mu dëll rek. <laughs> léegi toute façon bu ñu àndee résultat yi. daañu xam. man daal fu ñu toll yi def photo photo photo def ku ne ñaata nga am. allez kan ngeen di votel ban bleu euh, ban bleu ngeen di votel de toute façon euh, euh, jarul sox ñu koy organiser parce que xam naa ki gagné dès à présent muy man mi toog. <laughs> <laughs> man la xale bleu ah xale bleu xale xale buzz xale. <laughs> xale xale xale bleu bu oyof. yow daal ah dafa saf ndox. dafa saf ndox ak saabu. saf nag saabu saf tuuti waaw jërëjëf Seck jërëjëf Seck yow xamoon naa ni nga may xëyee tey <laughs> El euh, dañ doon seetaan euh, dañ doon seetaan benn vidéo archive bu ñu jëlee télévariété euh, bu suñu waajur boobu ñu koy nuyu bu baax di Alaaji Maguette Wade ñu gis fa xaar mbay après on a décidé ni moom lañ lay teralee tey ci suba gi. la ilaha illallah kenn du moom wallaay wallaay ma jaaga may sa joor bu woyee ba piis naanaan la Baye Cheikh way day ànd ak feeling mhm. da mën a capter doomu aadama yi te li leen di capter du ay wax rek mhm. geste daf ci bokk dëgg-dëgg mhm. <laughs> loxo xaar mbay mu ne ko nii rek jar na quatorze milliards xool ko <laughs> maire bi moo neex ba pare dafa def la moom te nag maa Baye Cheikh ki bu nu tàllewoon jamono dama koy jël de bul <laughs> mais c'est sérieux àddina yëpp am nañu waaw ndaw kii bu rafet. ah oui man d'accord naa man d'accord léegi kon nañu xool dañu xool clip bi eh, xaar mbay sax day bokk ci élection bi ah Zeyna yow yaay ministre de l'intérieur viens superviser notre vote euh, ban bleu moo gën a moo gën a rafet ci bleu wu tey sama bleu bleu El Hadj Man Mbaye Garmi bleu Bijou Ndiaye bleu Kia Aïdara wala bleu euh, wala bleu bu Oxydex nous sommes sérieux ce matin en bleu euh, voilà donc dites-nous ban bleu ngeen di voter sur Facebook en attendant nañu xool wooy wi nga xamante ni moom la ñu jagle El Hadj Man Mbaye Garmi nga ni boo tolloo woon ak jamono. dama koy jël ak ajatu xaal. dama ko bàyyi mukk caa pourtant weesu astafurlah xam <laughs> nga. Ah, ah, ah, ah waaye ndokk yàlla mbay. <laughs> tegal ñu tegal leen ñu ajatu xaal mbay ma jàng ayaa bi mbam. Bam. <laughs> dëkkam yaay booy bañu ma ko voilà merci beaucoup Pape Samba Thiam loolu euh, <laughs> dinañ ci ñëwaat peut-être prochainement euh, mais dañoo yeewu rek di fàttaliku ajaratu xaar mbay ma jaaga euh, mi nga xam ne ni moom la ñu nuyoo El Hadj Mane Mbaye Garmi borom guddi le 22 bi la grande nuit de Nebir alors wuréw a dem na këng nag ci vote yi peut-être ci photo bi ñu dugal ci Facebook bi Zeyna dafa iñaan moo tax sama bleu feeñul eh, noonu mais xam naa ni bleu bi yéen a ngi koy gis nii jaxaran xam ngeen ni bi xeetu bleu du yàq bët du bleu foncé du bleu diw bleu bu mën na koo supporter. yow dafa siyelee dafa siyelee voilà dafa siyelee. man li ma neex mooy Mbaye dafa def ñaari bleu. ah Mbaye ñaari bleu nga def. xam nga nag man nag man. mag du ko ne déedéet. <laughs> na sama leneen lu bleu waaye du ma ko wane siletment bi ci suuf dafa bleu foncé boobu itam bleu bu fort la boo xam ni euh, xam naa ni maay gagné moo tax du ma jaral summeeku pour di ko wane mais dites-nous euh, sama bleu bleu El Hadj Ban Mbaye Garni euh, bleu Exidex wala bleu bijou wala bleu Kia ban bleu moo ci gagné am na sama benn boo xam ni Yacine Baar dafa seytaane rek waaye moom moo doon voté alors elle dit que bleu Kia lay voté ah, bon on verra <laughs> tout à l'heure Adja Tuxaar Mbaye ma jàgg El Hadj mm. nee nga léegi nii bu ngeen tolloon tolloo woon jamono bu dee élection moom ngay voteel waaw xam nga Baye Cheikh aj xaar dafay ndaanaan donn na way jàng na ko te mën na ko itam te am na feem Baye Cheikh feem dafa am solo ci doomu adama ragalal koo xam ne kii mbay danaan yëng rek di way yënga lay seetaan comme Youssou Ndour wala non laa ilaha kenn du moom Youssou yëngul mukk ci àddina ah, mais nag gis naa xale buy xale bi way bi way bi bi imité yande koddu. waaw Laycha ah dëgg dëgg dëgg def na de talent feeñ na. kooku kooku yëngal nañu keroog ci foo ñu filmé ko noonu rek wànda kay xaritam rek def buzz. macha allah macha allah en tout cas on est fier d'elle. Ah léegi ñun ñëpp dañuy def tour table pour ku nekk wax. Euh, ah, parmi comme li El Hadj wax léegi. nii ah, yàlla nay yàlla nay xaar yàlla nay xaar. bu tolloo woon ak xaar jamono jël ko. Mm. Euh, loolu euh, ku nekk mën na wax. Euh, ah, mais Baye Cheikh loolu. <laughs> bu ko ci débat bi de. mais maire wala pas dama ko nangu. c'est euh, wala pas boo xamante ni euh, dépassé na dépassé na la bu nekkoon bu ngeen tolloo woon ak jamono. jamono loolu itam hashtag la ci Facebook bi kan ngeen di jël man ki ne waaw man kenn la waaw loolu moom mooy sama maase woon ak moom quand même jël jël kenn la am. xam naa ne sax même même si vous êtes marié. xam naa sax dogoo ngeen nekkee xale certainement gisoon ngeen benn. xam naa sax dogo dogo fa mu toog mu naan bàyyi seex mii bu ma ko mënoon a fekki fee naa ko fekki fee parce que. allez on démarre avec Exidex. Euh, ne me parle pas. koy jël ndax ndax Ndeye Seck signature ngay jël wala koy jël. ah Ndeye Seck bàjjan na Ndeye Seck Ndeye Seck signature jël sama bàjjan jël. mais bu ngeen tollee woon jamono kon. Euh, ah oui kon couple nañu bu yàgg. ah ouais sama bàjjan laa couple rek. def ko nu daanu. bi du génn gaal bi dërëm bi du génn gaal ah. jël Ndeye Seck signature doy na ma. Bijou Sy. Abdoulaye Wade. ah. Abdoulaye Wade. pourquoi parce que je l'aime bien je trouve que. Euh, tu trouves beau il est waaw élégant élégant ba pare dafa waxtaanam. Euh. boo koy gis waxtaan bi daf may neex. en fait c'est vrai que bu ngeen seqoon waxtaan daf lay daf lay téye quoi. ok d'accord d'accord euh, madame Félix. oh waay lii fort na waay. waaw waaw eh, yàlla na waay sa chérie baa ngi dafa nice. <laughs> Eh, man tam jënd leen photo ki de la am ngeen photo. Ah, maa ngi leen di. voilà. Oh, c'est quelle réalisation ça. <laughs> <laughs> man j'aimais bien quand même euh, j'aime bien sax comme ni ñu koy waxee léegi Ismaël Lô. ah bi ma nekkee xale j'aimais bien Ismaël Lô. oui pourquoi il est beau dafa coow fee c'est ça. waaye il est beau ah déet j'aimais bien rek bi ma nekkee xale jamono bu ngeen tolloo woon jamono bu kii noonu bu baax. oui dis-moi bu ngeen tolloo woon jamono bu la jëlee. damay damay damay fekk ma fi. <laughs> damay bañ madame. ah ñun nag dogo dogo bëgg dogo ñëw ci. ah man de madame <laughs> nekkee xale. ba nekkee xale. barki ne la am El Hadj Amadou Mbaye. Ismaël Lo euh, Bijou Ndiaye maître euh, Lo pourquoi bi mu mu doon woy bi ñu nekkee xale dama ko <laughs> Lo waaye. Lo waaye Ismaël Lo Lo <laughs> yow moo la yàgg daaneel. waaw. d'accord ah. d'accord bon euh, Alfie Ismaël Lo on n'a pas la photo d'Ismaël Lo c'est euh, on peut le, on peut le voir voilà il est beau c'est vrai hein il est beau ouais mal ah, qu'est-ce qui t'attire chez, chez qu'est-ce qui t'attirait à sa voix dafa mën woy waaw OK mhm. ak or bi non bu voix ak sama or <laughs> or Ricardo waay gën a may très sax <laughs> regarde regarde xoolal o ak sama o <laughs> non moo la bi day xaw a bu Ricardo. Oh, oh, waaw waaw quand même day donc Alfie Ismaël Lo Kya Aidara. man gàll. mu ne la tolloo ngeen jamono léegi tolloowu jamono mais bu trop tardul parce que c'est trop bu trop tardul mais c'est pas mais c'est pas trop eh <laughs> sigil sigil sigil sigil xale bi <laughs> ah, indil ñaari photo yi Mbaye ñu seet ah, waaw waaw eh, eh, sama sama xale woon na nag sa ndey dikke bi iñaan yàlla dogal na lii nag Mbaye ñu gën a téye voilà Alfi Ismaël man ki ne la am El Hadj Oumar Mbaye Garmi xaar mbay bijou maître Abdoulaye Wade ex dex Ndeye Seck signature signature kon yow da koy woyal man mu woyal ma man mu man man ki ne la woyal ma papo pap mi ci télé bi sama waa ji bëgg naa la <laughs> Zeyna euh, mets-toi sur ce euh, sur ce ce petit coin là tu nous euh, bu fekkoon yow la parmi euh, moom nag ay ay Michael Bolton lay wax ak xaw ma Emmanuel Bolton moom ay tubaab lay indi. Ah, je sais même pas de benn pas boo xamante ne boo tolloo woon ak moom génération di ngeen jëlante ñaar da nga koy jël. waaw wala mu jël la. waaw wala mu jël la. oui pas bu tolloo la génération. waaw waaw. ci woykat yeeg ci woykat yeeg ñëpp. man maître Abdoulaye Wade laa man tonton Abdoul Aziz Mbaye. kan ci tonton eh. Aziz. <laughs> ah waaw tonton Aziz kii wu ñu soxul. ak maam Fama. ah. Aziz na. bay maam Fama. Oh. Oh. <laughs> bés bu la bés bu la bés bu la euh, kii jàppee nga dee de ñu ngi ci waay. <laughs> damay ragal bu ñu paree fekk ji bi. bés bu la aji kànku jàppee. bés bu la aji kànku jàppee. est ce que mën nañu gis père Abdou Aziz ah. Mbaye. Ah. est ce que mën nañu gis père Abdou Aziz Mbaye. kooku sama cousin la. Euh, est ce que oui oui est ce que mën nañu ko mën nañu ko gis woowee madame Mbaye. Pourquoi? Parce que il est beau, il est grand, il est élancé. Non mais franchement, s'il était jeune alors là. Ouh là là. oh, oh ah, ah. quel dommage te kat li ñu wax moo ñu ëpp fi dégg la ca li nga fi fi nga àgg yëpp moo defoon àgg. Ah, nee na ko oh. <laughs> reste sur place chérie reste sur place euh, on va ñu génne image bi def. xoolal ma nii li yàgg na de pourquoi lui bi photo bu yàgg na Pape Cheikh tamit parce que intellectuel euh, parce que waaw waaw intellectuel euh, xam nga il est beau il est grand day couleur bi sax daan doo ko élancé il est respectueux xam nga euh. dama koy romb ci téléphone ne ko tante Abdou Aziz mbay waay dana ngi rek waay tonton du xëy yow li nga taxati tonton mun nar a def ci télé bii. léegi nag après bu ci topp pour góor ñi rek la bu ñaareel daga noonu élage euh, euh, euh, am xaar ba pare ko ci teg. ah Mbaye doo añ de doo añ. Eh, eh, eh, sax parce man bu ñaareel. doo añ. comme ñaareel dagan na bu doon tolloon na Fatou jamono dama koy jël de. Fatou Guewel koy ñaareelee. ah oui ah oui. ki ne mag Fatou Guewel ki ah, mag kër loolu kër gi day neex de. dina neex de normalement seeri koko ak bëti ndaw yi seeri. <laughs> Ah, nga tàkk ko. <laughs> tey saa nekk si amoo ci ñaareel. par man am naa ci ñaareel moom mooy. par mille c'est loolu yooyu ay amul impossible la. impossible c'est la grande griotte là te mu simple lu takku jaar. yow xamoo sax turam bu ko elle est magnifique et charmante. elle a beaucoup de charme donc bu doon tey dama koy jël. donc imagine nga am nga am ndey sekk signature. elle a beaucoup de charme waaw man ñaari thé noir laay def sama kër rek bu kii mbaaree kii bëpp voilà. rek ki jolli. ndaw kër bu yëngu. ndaw kër bu yëngu ñuul. man ay man j'aime j'aime beaucoup Gawlo hein. Coumba Gawlo eh. ah oui ah par contre Coumba ah, ah, Gawlo na eh, sa dënd. waaw mës ma ko yow da ngay iñaan rek. waaw eh parce que Sall Sall aussi dafa bëgg Coumba. ah moom jege gi mu jege Coumba yëpp du jege du la dafa tànk lool may. <laughs> mbokk yi euh, euh, waxtaane lu leen neex ci biir kër yeeg ci bureau yi xam nga li dee neexal. voilà voilà soxna ko si yooyu euh, na ca xalaat leen ay nit yoo xamante ndax da ngeen leen di gis ci télé bi et que certainement euh, bu yàlla dogaloon gisee am euh, Nobel ak jëlante mën na ci mën na am <laughs> mën na am quoi donc moi j'en ai déjà deux Kiné Lam ak Fatou Guewel les autres ku ci nekk wax nga on va regarder une page de pub et puis juste après nag ñu jàll ci choses sérieuses yi